abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba a'udhu billahi minash shaytani rrajim bismillah alhamdulillah wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah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 di am di fas yéene ànd ak ci waxtaanu gàmmu mbokki waxtaani gàmmu gi ren dañ ko fas jëmale ci waxtaani soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa ndax fi mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam ay jaar-jaaram dafay yaatu ba nga xam ne Euh, waxtaane lépp wala li ci ëpp ci mennum at wala genn gàmmu du yomb moo tax dañuy fas yéene di def rek at mu ne rek ñu am lu ñu jukki jéem cee waxtaane suñu kemtulaay kàttan mbokk yi li tax li tax ñu bëgg a waxtaane soxna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa ñoo xam ne ay adversaire laa leen man di tudde wala ay wujju wala ay détracteur yoo xam ne dañuy sukkandiku ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ak noonu mu baree woon di jéema indi ay lënt di jéema indi ay lënt di jéema itam indi ay sikki di jéema jam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ku seet wicc ku seet wicc koo xam ne day yare ak di jubbante kooku nag sori na lool ak di topp bànnee xam waaye am na ñoo xam ne ay adversaire lañ ay wujj lañ yoo xam ne liñ naan ku sa wujj di sëlam doo set dañu sukkandiku ci loolu daal di wax lu ne léeg-léeg na yàlla baal ñuy jéem a indi ay kàddu yoo xam ne dañuy jéem a gëmloo ñenn ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nitug bànneex la woon waaye fekk ñoom ñoo xamul rek waaw la imaam bu sayri waxoon ne qad tunkiru l aynu daw alchamsi min ramadin wa yunkiru l famu taama al maai min saqami waaw nee ne jant bu fenk rawatina mu feeñ ci bëccëgu ndara kàmb ci diggu njolloor képp ku ne gisuma ko wala mu ne lii kat ab sondeel la ngir bëgg a tuutal jant ba fekk na moom boppam lay tuutal ndax mi ngi wane ne ab gisam leerul waaw waaye itam soow mu ñu suukar ba mu saf sàpp kuñ ko jox mu ñam ko ne lii kat euh, senjang la senjang wala lii kinin la niva kinin kooku itam su fekkee soow ma la ci jublo tuutal wala ka defar soow ma ma ngay tuutal boppam di wane ne moom kat guwam des na waaw maanaam xamul lu neex wala kon dafa feebar ba gémmiñam xàmmeewul caf ko yi kon mbokk yi ñooñu euh, li ñuy wax seen bopp lay wàññi waaye du wàññi yonent bi sallallahu alayhi wa dara am na wa shamsuna fi samaa'il izzi saati'atun ما ضرها حين تعمى عندها العور bi sallallahu alayhi wa sallam daal jantum njolloor la jantum njolloor nag ku patt bu ne ko jàkk naan lii wees la wala sondel la su boobaa tuutalul jant bi waaye boppam lay tuutal kon mbokk yi ngir dindi ay lënt wala ay amalgame yoo xam ni ay nit a ngi ko bëgg a ci ay manœuvre ak i manigance di wax waxi tappale ngir bëgg a weddiloo ñenn ñi yonent bi sallallahu alayhi wala bëgg indi ay sikki sàkka loolu ñuy wax ngir dajji ko dajji boo xam ne day tegu ci xam-xam dañuy jiital ñaari point yi ñaari point yu ama am solo mbokk yi ndaxte kenn ku ne xam na ni ki tollu ci diggu jeunesse digg diggu ndawam diggu waxambaaneem kooku mooy gën a am kàttanu sëy mooy gën a am yëg-yëgu bànneex kon defe naa ki bànneex tax jóg ci jigéen euh, mu xaar ba màgget ba jëm mag ba dugg ci troisième âge soog di denc jigéen ñu bari te moo ba muy nekk ci duggu ndawam amoon nay moyen denc jigéen ñu bari waaye defu ko xanaa xaar ba jëm mag soog di denc jigéen ñu bari kooku kenn ku ne xam na ne bànneex taxu ko jóg ñaareel ba itam mooy góor gi wut bànneex ci jigéen defe naa jigéen gi toll ci diggu ndawam nga denc ko ci moom lañ gën a mën a amee bànneex jigéen gi nga xam ne dugg na troisième âge wala mu jege ko waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa laata muy denc soxna yu bari dem na ba weesu juróom fukki at cinquante ans waaye itam soxna yi mu takk boo ci génnee saydatuna Aïcha ñi ci des ñépp ay jeeg lañu ñu mas a jaar ci sëy lañ ñu mas a jaar ci sëy lañu saydatuna Aïcha rek moo ci nekkoon ndaw kon nag su fekkoon bànneexu rek moo ko tax a jóg kon benn doon na denc jigéen ñu bari ba mu tollee ci digg jeunesse sam am vingt ans trente ans wala quarante ans waaw waaye du xaar ba romb cinquante ans soog di denc soxna yu bari waaye su fekkoon itam bànneex lay wut ci jigéen kon doon na denc ay ndaw waaw waaye moom yonent bi sallallahu alayhi mbooleem soxnaam yi ku ci dul saydatuna Aïcha rek ku mas a jaar ci sëyla ku mas a jaar ci buumuk sëy la maanaam nekkuñu ay vierge mais ay veuve lañu defe naa lool leer na bu ko defee nag boo sukkandikoo ci ñaari tomb yooyu muy ñaari point yooyu di xam facilement ne ñi bëgg a joxoñ baaraami tuuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko bëgg a euh, présenté comme nit ku toppoon bànnee xam ñooñu dañuy nelaw rek dañuy nelaw rek waaye li ñuy wax teguwul fenn ndax su fekkoon bànneexoo ko tax a jóg kon benn doon na denc soxna yu bari ba mu nekkee ndaw waaye du xaar ba màgget waaye su fekkoon bànneexa ko tax a jóg su fekkoon bànneexoo ko tax a jóg kon doon na denc itam ay ay jànq waaw te moone moom yonente bi sallallahu alayhi ci yeewu ak intelligence am ak xam gum xam àdduna moo gën a xam ku yàlla bind ne denc jigéen gu toll ci diggu ndawam moo ëpp bànneex denc jigéen goo xam ne mas naa jaar kib sëy ndax ki ñuy wax jabir ibnu abdillah mas naa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa xar kanam ga leer naññi naññi kanam gay belli belli mu xeeñoo ay parfum de classe parfum yu am am doole waay yonent bi naka loo ko xool rek xam ne kii day seetu xam ne kii day seetu ca la ko wax ne ko hal tazawwajta qaala naam mu ne ko ndax dangay seetu ndax dangaa takk soxna su bees mu ne ko waawo damaa takk soxna su bees kay qaala bikran am thayiba qaala bal thayiba mu ne ko ndax ki nga takk ab jànq la wala jeeg la mu ne ko jeeg laa takk de fa qaala lahu salawatullahi alayhi fahallaa bikran tulaacibuha wa tulaacibuk wa tudaaxikuha wa tudaaxikuk wa tudaaxikuha wa tudaaxikuk bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko ndax jànq nga takk wala jeeg jabir na ko man de jeeg laa takk maanaam ku mas jaar kib sëy yonent bi sallallahu ne ko lu teewoon nga dem takki ab jànq nga xam ne mooy gën a joŋe mooy gën a sawar ngay man di foo moom mu lay muy foo ak yow nga di ko kafal muy kafag ak yow nga di ko reeloo mu lay reeloo kon yonent bi sallallahu alayhi nekkutoon ku nayif ku ñàkk xam àdduna koo xam ne euh, day jaawale day jaawale muy wala muy réere ne bànneexu sëy ci jànq la gën a amee doole ka ci ka ci jeeg ka ci jeeg waaw ndax ki xam dara ba koy digle mi ngi mel ne rek euh, ki nga fekk muy naan bisaab bu amul suukar ne la day day faju te fekk am na benn bis ngeen di waxtaan mu ne la bisaab de bala moo gën a neex faaw nga suukar ka def ci sucre vanille def ci Euh, essence banaan wala mante wala yu mel noonu def ci pasti def ci naanaa def ci nangam def ci nangam xam nga kon kooko xam na yan ingrédient ngay boole ngir am jus bisaab bu neex kon kooku soo ko fekkee muy naan bisaab bu amul suukar laa wax bu la nee fajoo ko tax a jóg waaye noos taxu koo jóg war nga kaa gëm nag war nga kaa gëm ndax ñàkkutum xel moom ñàkkutum xel waaw kon loolu lu jar a bàyyi xel la euh, baneen bi itam mooy soxaaba yi ak fiñ tolloon ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi nga xam ne jaraloon na leen sacrifier seeni alal sacrifier seeni euh, jëmm ngir rek protéger yonente bi sallallahu alayhi wala bëgg lu ko neex xam ngeen ne moos bu ci waxoon kenn ne ko may ma sa doom ji wala may ma sa ji jigéen ji wala may ma sa jarbaat bii xam ngeen du ca teg baat du ko gëme sax nag du ko gëme waaw kon li ma bëgg wax mooy fu mu takke moom jaaxalu ko fu mu takke jaaxalu ko waaw kon lii day dajji waxi ñi nga xam ne ay noon lañ ak yàqkati der dana dindi itam ay lënt ak tuuma ndax ñoom kat li ñu bëgg mooy profaner sacralité yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko bëgg a désacraliser maanaam li ma bëgg a wax mooy dañ koo bëgg a ñàkke teggin bëgg a yàq deram bëgg a yàq réputation wam bëgg a yàq réputation waaw waaye kon bu la kenn gëmloo ne yonente bi sallallahu alayhi li tax mu denc soxna yu bari yi bànneex lay wut wala ay fo déedéet waaye dafa am ay xikam ay raison yu noble ay sabab yu tedd yu tax mu denc soxnaam yu bari yooyu waaw euh, sabab yooyu yépp yitam du pour intérêt boppam de déedéet du pour intérêt boppam waaye pour intérêt diine ji pour intérêt mission bi luy tax mission wam dox kon soo jàngatee histoire daal bu baax a baax jàngatu seetantal di nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa li taxoon mu denc soxna yu bari yooyu sabab yi day dellu ci intérêt boo xam ne day tax message am day tax mission mën a réussir day tax message am mën a jàll waaw sabab yooyu nag bari na lool am na yoo xam ne day dellu ci wàllu jàngale al xikma taalimiya muy des raisons pédagogique waaw des raisons pédagogiques am na itam alxikma tashriiya muy am na sabab yoo xam ne day delluwaat ci tëralin wi tëralinu luwaa yi nga xam ne ñu tënk diine islaam muy des raisons législatives waaw am na yoo xam ne itam xikma ijtimaaiya la muy day rafetal digganteem ak penc mi digganteem ak société bi muy de raisons sociales am na loo xam ne nag xikam siyaasiya la muy ci wàllu doxalin doxalinu àdduna ngir doxalinam ci àdduna jag euh, laajoon na mu takk yenn soxna yi nga xam ne kon ay raisons politiques la ay raisons politique donc euh, incha allahu rabbi dinañ waxtaane yi yépp waaw Euh, muy les raisons pédagogiques ci wàllu jàngale fan lañ ko teg maanaam lan mooy wane ne lan mooy wane ne dafa dencoon ay soxna pour des raisons pédagogiques pour am njàngaleem gën a mën a leer lan moo koy firndeel dinañ ci ñëw incha allah rabbi waaye itam lan mooy wane ne dafa dencoon ay soxna ngir tëralinu tëraliinu lislaam luwaay islaam yi gën a mat loolu li koy firndeel dinañ ci ñëw bu soobe yàlla waaye itam lan mooy wane ne dafa dencoon yenn ci soxna ngir lan rafetal digganteem ak penc mi ak askan wi ak société bi dinañ ci ñëw bu soobee yàlla ak lan mooy wane ne euh, dafa amoon ay raisons politiques yu taxoon mu denc soxna yu bëri yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw kon di leen ñu xaar ci yeneen waxtaan dinañ leeral sabab yépp bam leer la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bànneexu rek taxu ko woon a jóg waaye dinañ leeral. soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata la woon ak kenn ku ne ci yan contexte la ko dencee mbokk yi ngir bañ a guddal lii mooy waxtaan wu njëkk wi ci waxtaani gàmm gi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fi la njariñ yi di gën yaatoo jàngeen jëf wasalaamu aleykum wa taala wa